bisimilah rahmaani rahim kon ñoo ngi en direct ak Bichri TV nekk ca Denver ñoo ngi fii ci Touba Athènes ci màggalu 18 safar bi 2016 ñoo ngi nii taxaw ak jëriñ Mbay Ndaw ku am pas-pas ci liggéey bi muy taxawee euh, depuis 2008 mu ngi ci waañ wi taxawee liggéey bi. kon nag 2016 bi exception la dañoo def rénovation sëñ Mbay Ndaw ñoo ngi lay laaj loo am loo sentir ak looy soññee ci màggalu 2016 bi bisimilah. bisimilah Mouride ñu ngi siyaar bu baax di siyaar mbokk taalibe yëpp. di jiital ci siyaar bi Serigne Sidi Muxtaar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ginnaaw bu ñu euh, siyaaree ba pare ñi ndokkeel ñëpp ci bis bi rek nga xam ne comme niñ ko daan defee rek euh, di ñaan ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilahi rabil alamin e, di ko waxee comme niñ ko daan waxee rek di xamal nit ñi ne bis moom saa bu weer wi teroo rek day tekki ne mooy ñun ñëpp war nañoo duggaat ci bis bi xam ne màggal gi ñëw na comme moom la ñu suñ Tuubaa tànnal muy suñu bis. kon ñun ñëpp war nañoo waat jaajuwaat euh, ba yeesluwaat duggaat ci liggéey bi nga xam ne euh, saa buñ ci duggee rek euh, ñu dugg ci ak bisimilah rahmaani rahiim génnewaat ci ak alhamdulilah rabil alamin ñu lay laaj ban yëg-yëg nga am ci liggéey bi ngay def nii. waaw yëg-yëg ñu ci am moom moom xam nga ne comme ginnaaw benn bis bi lañ am muy màggal ak Touba yëg-yëg biñ ci am moom bu kawe suñ jortu lay doon ndax yaakaar nañ ne comme moom mooy suñu benn bis. Euh, mënuñu cee weesu lu dugge ci ak pas-pas duggee ci ak euh, dem ci ba jeex tàkk ba def ci lu ñu mën ak lu ñu mënut ndax kenn ku nekk xam na ne euh, liggéeyu waañ bu la ko dénkee li ci des rek moom mooy xam ne dañ laa doyloo ba dénk ko li ci des rek moom mooy yeesalaat ci pas-pas yi yeesalaat ci sunu man ak lu ñu mënut nga xam ne Sëñ Tuubaa moom am na ci lu mu wax ci mooy ku ko defal loo loo loo mënut mu defal loo la jomb comme loolu teel nañ koo xam moo tax saa buñ ciy dugg daal duñ ci duddee ak sago ñu ngi jéegul waaw ah, comme jëwri ñun xam nañ ni bés bi képp ku ko fonk gis nañ ni am na différence boo ma ak ku ko fonkul ban soññee ngay def ci suñu mbokk taalib yi nekk ci dëkk bi ban taxawaayu la ñu am ci daara ji ak ci bis bu toll ni màggalu Touba. waaw ab soññe bi soññe bi moom mooy yaakaar naa ne eh, am murit moom daanaka da nga koy yeesalaatal ci lim nekk rek waaye booy xool gaay yi fi mu ne nii ñëpp commencé nañoo yëg bis bi ndax eh, lu weesu weer nga nekk di ko préparé at ba heure bi kon yaakaar naa ne ñoom fi actionné rek lañ def te ñu ngi ci. léegi xanaa kay di ñaan li ñi nga xam ne ñoom laa seqal liggéey bi ñu gën a xam ne euh, liggéey Sëñ Tuubaa yombut kon bu ñu amee tawfeex sëñ bi boole ñu ci ne ñun ci ñi ñi ko war a liggéey ci lañ bokk liñ ci war a jàngate rek moom mooy gën a yeesluwaat dugal ci liggéey bi nga xam ne saa buñ ci gënaatee rek ñu wax comme nañ daan wax mucc na ayib ñu ngi rafetluwaat taxawaay bu baax a baax a baax ndax ñëpp jóg na muy soxna yi ak mag ñeek gone yi ñëpp taxawaat nañ jàpp ci liggéey bi boo xoolee xéwal yi berne yi fii lañ koy commencé ci 17 safar bi mu fanaan ba bët set ci premier safar bi ay xewal la ba ci ba ci euh, la vingt ci suba gi ci kat na suñ borom dinañ ko def ay xéewal yëpp yoo xam ne dinañ ko defee noo xam ne dina mucc ayib lu méngoog bis bi ñu ngi ciy woo ñëpp nag di yeesluwaat ci ñëpp rek ñu xamal ne maanaam bis bi moom ay jëkkante la comme jëkkante la nag kenn ku ci nekk na yëg ne euh, li mu ko war a defee moom mooy xam ne bësama comme nag ñun lépp suñu bës la nan ci duggee noo xam ne saa bu ñu ñëwee rek ñu xam ne suñu bës bi ñëw na kon jërë ngeen jëf kooku mooy Diorigne Mbaye Ndao depuis depuis 2008 mooy euh, moo euh, jiitee liggéeyu waañ wi liggéeyam taxawaayam rafet trop trop trop ba ñëpp di ko rafetlu ñoo ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla na taxawaayam yàgg yàlla na li mu yéene yëpp yàlla na ci yàlla na ko gis lépp lu mu fi liggéey nag yàlla na ko yàlla fuul séddale ko bépp bépp bépp taalibe murit bu nekk ci àdduna bi ak jullit yëpp jërë ngeen jëf kii mooy jëriñ sëñ Xaarim Amar moom duñ ko présenté ndax euh, moom moo jiite commission culturelle boo déggee commission culturelle moo yor wàllu njàngale alxuraan mi njàngale xaside yi conférence yi yeete bi ak yeewe bi lépp moo ko yor moom la ci loo loxoom la nekk depuis bi ñu commencé màggal gi maanaam exposition yi ñu war a def li ñu war a jàng ci xaside yi moo koy saytu njàngum alxuraan bi moo koy moo koy saytu lépp moo ko yoree jëriñ Xaarim ñoo ngi lay ziar bu wér-wér. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa Ibrahima ñu ngi delloo ziar bu baax te di leen sant. di leen ñaanal itam liggéey bu rafet bi ngeen nekk yàlla na ko yàlla saa borom àggale ci ngeen dayee cee ngërëmul sëñ Touba comme ni nga ko waxee rek màggal gi bi mu jibsee yaakaar naa lu mat weer ci gannaaw ba nekk ni ñu ngi dox ci lu mel noonu nga wax muy lu mel ni wàllum kulturel wàllum njàngum alxuraan mi wàllum exposition bi ñu war a def wàllum conférence yi ñu war a def ak yeneen ak yeneen yàlla dogal na li nga xamante ne ñun jotoon nañ ko soxla lépp lu ci bari maanaam def nañ ko ba tey fii agsi nañ ci cappaandaw ji li ñu waroon def ci wàllu exposition pare na li nga xamante ne si itam taalibe ñu ngi ko doon def ci wàllum njàngum alxuraan lim bi fi ne nii takku na ak wàllum xaside itam foofu daal lañ tollagoon ci liggéey bi waaw Diori ñoo ngi lay delloo njukkal bu baax a baax di la laaj ban yëg-yëg nga am ci màggalu ren bi ci taxawaay bi waaw màggalu ren gi moom mun naa wax ne bu fekkonte ne dañoo amoon yëg-yëg daaw 100 pour. waaw jëwriñ Xaadim ñoo ngi lay laaj ban yëg-yëg nga am ci màggalu 2016 bi. waaw màggalu 2016 bi wax dëgg yàlla am nañ ci yëg-yëg bu am solo mun naa ne bu doon 100 pour cent daaw ren 200 pour cent la ndax boo xoolee taalibe ni nga xamante ne si noonu lañ commencé ci liggéey bi. yow boo yaafusoon ba mel ni man sax dana yokk motivation ndax depuis weeru safar wi commencé ba nga ni kenn amatul bëgg wala looy tal ñëpp bu ñu xëyee ñu ngi yëngu ci wàllu màggal gi ba tax na liggéey bi wax dëgg yàlla macha rafet na trop kenn daal tëddatul nelaw ñëpp a ngi fas yéene taxaw bis bi rafet rafetaay boo xamante ne si ati fi weesu woon yëpp ren dañuy wax naan moo ko dàq yëg-yëg boobu lañ ci am di leen xamal itam maanaam mbirum sëñ Touba moo mel noonu olof yi dañuy wax ne amul tànki gannaaw tànki kanam la te loo ci def ren rek bu déwénee da am yéene def lu ëpp lool te yàlla daf la koy yombalal ba ni nga ko bëggee ren lu ko ëpp moom ngay amaat yëg-yëg boobu daal moom waaw soññee bi may def ci màggal gi maa ngi koy jëkke ci li nga wax muy daara ji ndax euh, boo dem murit nekk ci am réew daara sëñ Touba am fa yow kenn waru la faa jiitu ndax tey kenn ku nekk ci ñun li ngay tiitaroo mooy taalibeeb sëñ Touba la comme yaa ngi tiitaroo taalibe sëñ Touba la nag lépp lu ñuy dox lu jëm ci mbirum sëñ Touba yow da nga war a góorgóorlu ba tax na maa ngi soññiwaat bépp taalib boo yaa ngi ci dëkk bi nga gën di bàyyi xel daara ji di ci ñëw di fekke daayira di bokk ci li nga xamante si mooy sayt sart daayira bi dana tax maanaam lépp bépp liggéey bu ñu bëgg a def ci dëkk bi loolu dina ko yombal bu loolu weesoo itam may xamal mbooloo mi ne maanaam màggal def sax doo ko xam mais bu déwénee ngay xam yow li nga defoon daaw lu mu la jëriñ ren kon la borom waxoon ne maanaam damaa dem liggéeyal yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla sama borom fay ma fay gii nii cant gi nag man lott naa ci man sama bopp moo tax mu sàkk mboolem fu jullit mën a nekk la wax bu bis bi ñëwatee nag mu sant li yàlla sama borom. loolu nag mooy ku yeween ndax dem liggéey ba ñëw mënoon a féetewoo fay ga nga ne dama koy bokk ak mbooleem jaam ñi fu waay mën a nekk nag ma sant la sama borom kon képp koo xamante ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan bu bis bi ñëwatee foo mën a nekk war nga koy sant bu baax a baax sant nag ñetti xeet la ndax munoo sant yàlla ci gëmuloo yàlla ca gëm dafa yaatu ndax da ngay gëm yàlla gëm yonente yi gëm malaayika yi gëm téere yi mu wa sallam sa ngëm door a a wér léegi sant mu am sant ak ci xol bi koy yëg ak jëf ji nag cant gi door a mat kon tey moom cant gi mu doon wax bi mu liggéeyee ba ñëw sant na ci xolam ne yàlla fay na ko li mu doon liggéeyee mu yëkkatiwaat ci alalam aw ñaxam njukkale ko boromam xamal ko ne li ma defoon sant naa ci kon taalibe bu ci nekk doon nga war a sante. waaw ñoo ngi lay bu baax a di la jox rendez-vous suba incha allah jërëjëf.